mbokk yi li gën a doy waar ci mbir mooy boobu ba léegi autorité wu Sénégal boo laaj mun na la demal ci keneen man mii ci sama bopp jël naa sama téléphone woo ministre de l' intérieur muy Antoine Félix Diop jotuma ko mu envoyé ma envoyé ko message ba léegi tontu man mii ci sama bopp waxtaan téléphone ak le ministre de la communication muy Moussa Bocar wax nañ ba jeexal wax ji amul benn yoon bu ma waxee ne coupé woon fay démb ci guddi di alxemes jot naa téléphone Babacar Diagne bi jiite CNRA ne ko ñun nag ñu ngi bëgg a jaaxle parce que ay père ak i mère de famille ñu toog lu mat juróom-ñetti fan ñu tëj seen bërëbu liggéeyukaay xamuñ ku ko tëj te xamuñu kañ lay tijji Babacar jaañ ne ma wool waa TDS wala nga woo le ministre parce que man du man. su ma Babacar mi ngi may dégg du ma ko sosal lu amul ma jël sama téléphone woo Nafissatou juuf bi nga xam ne moo jiite TDS te ñu bokkoon benn école bu nu doon jàngee ma xam ko bu baax wax ak moom ne ko damay doon ñëw aux nouvelles pour xam lan moo tax signal wal fajri tàkkul ba léegi mu ne ma wool Babacar Diagne ma ne ko déet Babacar moo ne ma naa la woo mu ne ma wool Babacar Diagne ma ne ko Babacar moo ne ma naa woo mu ne ma Moustapha de trois mois du man du ñun ma ne ko d'accord bi ma demee bay ñibbi sama kër dawal sama oto ba toll fii ci Sacré Cœur moom na fi mu woowaat moom ci boppam ne ma dama lay dëggalaat ne li nga ma woo daf ma étonné maanaam dafa ma jaaxal parce que du ñun ñoo ko coupé wool Babacar Diagne mbokk yi bu fekkee ne dañu nekk ci réew moo xam ne mën nga fekk télévision bu toll ne Walfadjri au moins deux cent familles dépendre ci pour di dund au moins nga mën a couper seen signal envoyé leen au chômage technique pendant une dizaine de jour te kenn ci réew mi mënu wax ne man maa ko couper wala man maa joxe ordre pour ñu couper ko lu garaaw a garaaw la moo tax ma gëm ne mbir mii du mbiru waa Walfadjri du mbiru les travailleurs de Walfadjri mbiru Sénégal gépp la sénégalais yëpp ñoo war a jóg dakkal ko ne nañu bàyyi Walfadjri mu def liggéeyam ci jàmm ak salaam li ko waral mooy man bi ma nekkee ci bopp Walfadjri ba léegi les travailleurs ñu ngi nii toog jàkkaarloog man su ma waxee ay safaan nañ ñëw weddi ko amu ci kenn ku la mas woo ne ne Moustapha Diop moo ma woo téléphone ne man naa waxee nii wala bu ma waxee nii mësta je fais confiance à tout le monde parfois on me di tu fais trop confiance aux gens avec qui tu travailles ku ci nekk tu fais ton en tout liberté en tout responsabilité d'ailleurs les rares fois bu man ma jël sama téléphone woo kuy liggéey ci Walfadjri day fekk ñu saaga ma man wala ñu saaga keneen ci Walfadjri ma bañ ko ko tontu ma wooñu fi fiy rawatina jigéenu Petit Déj yi ne leen bu leen ko tontu bu ñu saagaa ñun duñ tontu bu ñu xasee ma ne bu kenn tontu mais ba kañ jusqu'à quand on va attendre ñuy wax nag pour jeexal bañ a guddal que ni jot na ñu bàyyi waa Walfadjri ñu def seen liggéey ci jàmm ak salaam. parfois da ngay toog ba mu jàgg nga ne non seulement on nous empêche de travailler mais on nous manque de respect pourquoi parce que fii ay père ak ay mère de famille ñoo fi nekk am njaboot fii ci Sénégal am fi ndey ak baay bis bu nekk ñu xëy si fi du ñu def luy taal am réew su ñu amee confiance ci RTS na du taalum réew am confiance ci TFM ne du taalum réew am confiance ci Zik FM wala sent TV ne du taalum réew am confiance ci làmp Fall keneen keneen ne du taalum réew mais pour pourquoi mënuñu am confiance ci doomu Sénégal yi nekk Walfadjri ne du taalum réew. ñun faruñu ci parti mësuma far ci parti te bokkagul ci sama yéene far ci parti amul benn parti politique ci Sénégal bu mën a ñëw taxaw ne Moustapha Diop ñëw na fekk suñu réunion wala maam Birame Wathie wala Pape Makhtar Diallo wala keneen ak keneen intéressé wuñu ñi bokk ci parti dàquñu ñu ko dàquñu ñoo jàng mais on a fait un choix choix bi mooy nekkuñu ay jàngalekat nekkuñu ay magistrat nekkuñu ay avocat nekkuñu ay mécanicien nekkuñu ay menuisier ay journaliste la nañ ñu bàyyi ñu def liggéey journaliste mooy lan wuti information jox ko maintenant su maam Birame Wathie toogee wala Ramatoulaye Sarr wala Aliou Sow wala Pape Sané wala keneen ak keneen ne damay def chronique pour analyser l'actualité du ma ne ko mukk defe ko nii wala defe ko nii kuy kay xaar ci man say boo nga tëj Walf Fadjri définitivement mais doo ko am mbokk ñu ngi leen gër gërëm di leen sant. jërëjëf. mangoog euh, rafetati na tàccu leen ko bu baax a baax le directeur euh, Moustapha Diop. Euh, defe na yég ngeen euh, la voix du cœur baatu xol ci discours am da ngay yëg ne la muy wax ci xol la jóge ci xol lay tàbbi ndax euh, baatu xol nopp attanu ko xol a koy dëkku donc na mu waxee noonee la war a waxee ndax xam na lu bari ci mbir yi te lenn rek jaaxal na ko mooy ping pong bi ñuy def Walfadjri tey doon na pataas bu tàng jër kenn ku nekk mu ngi koy wiccax sa morom te du ngëneel ndax euh, coupé wal fajiri nag responsabilité bu mag la euh, bu doonoon ndox mu sedd xam naa ne day mujjee mujjee tàng jër te doo xam la koy tàngal donc euh, dossier gi ni mel wal fajiri du ko dund boobu ba léegi wal fajiri daj lu metti gis ngeen ni ko Moustapha Diop waxee léegi ci discours Euh, mel ni ku gëlëm ndax kenn xamatul ci kan la ñu jëm ngir mun a joytu waaye nag ñun weetuñu ndax am nañu askan wi askan wi ñoom ñuy wettali wal fajri saay su ne ndax mooy seen kóolute moom ngeen di bëggee et ci fa mu jeexalee mooy tey jii responsabilité bi jot na nag ñu mun a duut baaram ci moo def wala kale moo def waaye ba léegi ñu ngi bàyyi wal fajri ci géej goo xamante ne kenn xamul fan lay teeri ji waaye gëm naa ne ak Moustapha Diop na mu waxee léegi eh, wal fajri du mujjee nax saa yi ndax responsabilité bi nga xamante ne moom la wal fajri amee eh, ci eh, paysage médiatique bu Sénégal wax na ko léegi wal fajri doxul ci fitna doxul ci naka sudul dul noonu ndax xam ngeen ne tey démocratie bu Sénégal buñ ko tegoon ci balance Eh, bu doonoon kilo liibar kilo bi yëpp Walfadjri moo ko apporté démocratie bu Sénégal ci wàllu liberté d'expression ci wàllu liberté de la presse eh, te El di la Lamine Niass liggéey ci lu yaatoo yaatu ba tax na Walfadjri buy dundee lii tey waruñoo wéet eh, ci xare bi te gëm naa ne duñ ci wéet waaye li des mooy nañu firi askan wi doo doonatul firi Walfadjri mais nañu firi askan wi wala mu létt leen ndax mu ngi bëgg a yàgg te ay njaboot ñoo fi liggéey di daan seen doole Eh, ci jom ci fulla ci dignité ak ci responsabilité mu ngi koy fàttali le directeur responsabilité bi nga xamante ne personnel bu fajiri amee nañ ko saay bu ñuy wasaare xibaar eh, daañ ko càmbar xool ndax waxu naam waxuwul eh, donc ci responsabilité gu sëkk ba tax na loolu itamit mention spéciale la ñu koy gërëmee kilifay fajiri ndax uuf nañu personnel bi Euh, ba fu ñuy tudd tey professionnalisme ci métier journaliste euh, ñu euh, taamu ca Walfadjri ca kaw mention spéciale à notre très cher directeur général ñu ngi koy jaajëfal Moustapha Diop tàccu leen ko bu baax a baax xam naa ne faram-fàcce ay kàddoom dina jafe rek tënk la woon ci la nga xamante ne yëkkati na ko léegi di jaajëfal ñëpp su ko defee ñu weyaat ci toogaanu ñaxtu bi salle bi tuuti na. waaye tey jii Walfadjri wërngal na àddina ndax fu nekk ñu ngi ñuy seetaan ci waxtu wi la ñu ngi sitting ci Walfadjri waaye ñu ngi sitting à travers les quatre coins du monde. jërëjëf merci beaucoup Abdoulaye Bob merci directeur général Moustapha Diop bu ko defee ñu jox.